bi la yoon nag mooy bu baax bi ndax Pape Ndiaye keroog annoncé woon nañu nag nii dañu ko daal ji nag libéré eh, ci ay nag eh, site yoo xam ne ñoo ko daal di nag waxoon ni eh, libéré nañu ko ci laata ñu dégmal daanaka ñaari fan bi tabaski daal di nag dese la ñu ko daal di nag waxee waaye loolu yi nag amuñ ci woon sax benn xibaar boo xamante ni wóor na ndax nag dañoo juumoon ci ay xibaar waxoon ci libération ci veyu tabaski bi waaye nag texte bi sax daanaka waxoon nañ ko fii ñun defoon ci nag li nga xam ne moom mooy euh, briefing waaye nag moom Pam Ndiaye bi la yoon mooy bu baax bi ndax nag daal di nañ koy nag libéré ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni tëdd na ko nag euh, ca euh, kaso bu rëbës ginnaaw nag coowal escroquerie ak nag jéem a dóor màtt goo xam ne dañ ko ko daal di nag tuumaal moom Pape Ndiaye as ndaw su jigéen moo ko daal di nag tuumaaloon ne def ko nag daal di triande xaalis bu toll ci cinq cent mille francs CFA am keneen itam ku ñëw ne daf ko triandé moom un million te lépp naka ci euh, boobule trian naka lii ko daal di sabab bokk na si Pape Ndiaye daf leen doon gëmloo ni euh, ci ay relation yi nga xam ne daf ko am ca prison bu Rebeuss bokk na ci te tribunal bu Ndakaaru mën na def euh, ba daal di manipuler ay relation def kem kàttanam ba daal di lay fexe ñu daal di libérer sa jege ñaare bi nga am ca prison ba loolee tax nag mu doon encaisser xaalis moom sax a ca njëlbeen dafa doon weddi ne nag ki nga xamante moom mooy Ndeye Awa Ndiir nag ab corom la te nag daf ko lebaloon cinq cent mille yooyu la waaye du leen loo xamante ni nag euh, daf ko euh, daal di nag triande moom day awandi daal di topp mbiri jël avocat dem ba ci kanamu yoon dem ca mbir ma ba ca cappaandaw la yoon daal di koy jox dëgg ca nag wàllum yoon liñ koy toppee bokk na ci escroquerie ak li ñuy duppee euh, ci wàllum yoon discrédit sur les institutions maanaam nag di jéema néewal doole suñu institution ndax nag bu ñu nekk justice bi mën nañ koo manipuler ak ay relation mën na tax ba ñu libéré koo xam ne dañu ko daal di condamné loolu nag porté euh, du discrédit sur les institutions la ko yoon daal di naka toppee euh, ñu fàttali ne nag ci mois de mars événement yu Ousmane Sonko Adji Sarr mbir yeeg coow li amoon ci réew mi nag bi mu daal di jàllee képp la ñu ko daan moom mi nag ñetti weeru kaso yoo xamante ni nag tëdd na ko moom Pape Thioro Ndiaye nekk journaliste chroniqueur judiciaire nekk tamit euh, ka doon animé émission ba